sợ con nó سلا سلا سلا سلا Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla, ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal

لله الذي جعل الصوم ركنا من أركان الإسلام ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه القائل بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا القائم أيضا صوموا تصحوا إخوة الإيمان الإسلام أيها الصائمون والصائمات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته abdoul barri ngalon ko wato kono fata bake bal surwal ko liqin qat qat qorom xecci kalero fata ñaña ko dula o kasoto jeele ko wato kono fata annu ngalon ko bebele lafirin ka cheikh abdallah la bankele lamoyñin sunkaro kono bar ngalo mo mantol si ndolmil botanan birin gambi wiltana kamma woto kende mun ñu des be kan tolle ma koy ninna eh, honorable ba na député min keta mohammed maga siti alhamdulillah ko eh, ya banque ñamin kabirin na président kuto sita min keta adama baroti Eh, moro diŋo le mu ala taalibo le mu a fankara fa karafa male le ñaasiyo fana ñaama uh, eh, a siita ala député folo le mil futata moroma eh, kana a konton ka ala duwa jabo yitandi ala ni mouhamadou maga siibowol le kono kabirana ta naata gambi wo wala na kabiriŋ naata saalo to a moro konton moro ako moro eh, fo en suutele moro muyta akaye kay nge suutele akaye te folol min latan konto akaye ɓe oh, wolle kono woto eh, la wo kammala wo nuuto siyamin aya eh, soto ah, moro la ñin man daññinta doron pour moro ta gambia ay ta konton bari kabiri ñin kibaro fotatanma ko moro ka eh, kaca bale soto sunkaro kono min keta conférence oti a koñe ko eh, haydaran ko nam ako ñiŋ be miŋ kan kaŋ ŋa soto le fela man maŋ bentol la duu fe fo sibitolem lem ako ñiŋ be wakkilla le eh, a ye ñiniŋ ka kuwo kuu la pour ka taa am tako ko wala ya fankandi pour kana kana mabe inchallahu cheikho la ñiŋ eh, muhadara to mi yanko alafta a lafita eh, ka samba ŋa nindol niŋ futata to mandoba baa to minil mabe gambia gambiya eh, mba kuwo bondila la fananale ka na ngalong honorable bulo ba a tep kanna ba record kanna ba ta kanne ka samba pour narara sita janjandi banko kan e je ko tumando baɗo président fan bulo so sinoñin conférence o kaset o male ni altarta inchallahu député futata banko kan oto sabo kammala e naali en je wala mun na kuŋoti e atele mun na inchallahu tan baati bi e, ntolu o ntolu mu madina kolete sewota ga molu je nga alfalu je ga banko alfalu je انكوتو ما بجان شيخ عبد الرحمن جلو آه، افنان ناتا ما بي ما شاء الله ناني مدينه تيمولون صابو كملا آه، سيو تباكي بدوال ان شاء الله كونفرنسونين آه، فو على سا ان شاء الله فتاندكو كيرلا مورو بنا من بانكيلا فو ان شاء الله بيسكي امويلاتي فخلوا لي سبيل الى اظام فخلوا جليل وشيخ كرم بله سلامي سلام الله الهادي فخلوا لي سبيل إلى أذامي جليل شيخ كرم بله سلامي سلام الله يا ينن لشيخ الدين للأقوام هاد لشيخ الدين للأقوام هاد يقودهم إلى سبل سلام ينن يا نن محمد لشيخ الدين للأقوام هادي يقودهم إلى سبل السلام يا ينال

هم وجيد بمنهله أتاه من الأنام ينل ينل يلن ويروي من له هم وجيد بمنهله أتاه من الأنام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد فاته أقفال القلوب مفاتيح أنوار القيوب وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم جماعة المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته بقليف كونتون سيني بنا ne gannaaw bu mu santee suñu borom mu julli ci nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi mbe duwala aye me ala ye ntolu fanalo ŋa me aye ñu koy ñaanal mu yàggal fi boromam lool ñun tamit ñu yàggal ko fii naa meeta ni ŋa lon min ala mee mun na meele su fekkee moom yàgg na de suñu xamee lan mooy yàggaayam kon yàggaayam fii mooy suñu yàggaay mbeaɗo ko kon donnan koto ma janna alimamu demba ñu ngeen nuyu rakkam ki nga xam ne mooy suñu mag ñun mooy imam janna ba imam alhaji demba suwane mben ɗo ko kon donna ibrahima sambel suwane maa ngeen nuyu suma beneen rakk mi ñuy wax alhaji ibrahima sambeli suwane mben ɗo ko kon donna saate alikalo min mu Mouhamed Kana Mori Suwaani. maa ngi nuyu suñu beneen rek. mi xam ne moom lañ teg ci loo dëkk bi mooy borom dëkk bi ñu koy wax alhaji Mama Suwaane ñu ko xam ne Suwaane. mbenn jon keekon doon na alhaji Abdoulaye Karamba Suwaane. ay Fati. Ah, am na suma beneen jàmm moo xam ne man rek maa ko feetoo bokkuma kenn mooy alhaji Karamba Fati. mbéeg. gouvernement Mawlu Beye kontoon na. ñi nga xam ne ñoo bàyyeekoo ci wàllu nguur gi maa leen ay nuyu ñoom yépp benn rajo Thiel bee kontoon na. ñi nga xam ne ñoo ànd si ak rajo yépp maa ngi leen ay nuyu bu baax. mben doko kontoon na doko kendo Kerakunda Suwani. mu ne maa ngi ruyu suma rakk bu baax moo xam ne dafa ma topp lool muy karawaan Suwane. mbe naa laali bee kontoon na min nu bota maa faŋu bee la. maa ngi nuyu képp koo xam nga fi fi xam fi nga mun bàyyee ko ci la wala ci gox gi la maa ngi lay nuyu ngo kon wala mu abdurrahmani Abdourahmani Diallo ki nga xam ne moom lañ jagleel jotaay bi alhaji borom alimam bi mooy suñ mag ni alhaaji Cerno al imam Diallo la la ñëw na ci besam ñëw na ci bérébam mbaa kon doon na mbe duwaala koy nuyu te di ñaanal mbe musulmoolu kondon na maa ngi nuyu jullit yépp mbe diyaa moo man jam fa mu waxtaan bi ma bugg a door euh, du nekk waxtaan buy war a gudd duniyaa da nga million jee ku worow la lam man de li ma xam ci àdduna mooy juróom mbir ŋowo len loon duniyaa to loolu laa xam ci àdduna bari bee fula fula naatale waaye juróom-ñaar yëpp bi ñuy ñëw dam dañuy ñëw par ñaar ñaar kilin na naata naa laba benn rek moom mujj ñëw ba walee bee commandé walee ñu ni ngóoro bee commandé waaye juróom benn yëpp bi mi nga xam ne moo mujj ñëw moo moo ëmb yi yëpp moo leen jiite birin ala soolata duniyaa bi nga xamee ne suñ borom dafa soxla àdduna ako fen fulale ali ñaari mbir la ebal ne leen dem leen ci kaw aduna arabol ol kafo wala jari faani arab yi loolu la ñu tuddee jarfaan miran fulalem ñaari da ah, ndëpp la ako zarfu zaman wa zarfu makan mune ne zarfu zaman a zarfu makan ala ko ole alta ñooñu la ebal ne leen dem leen ci aduna ni dara dawo da fo ta dem ibe tar la dinkiral do ni be duniya kono il faut nga am béréb boo xam ne ci ngay dëkk su fekkee yaa ngi ci biir àdduna fi wala mu jarfu li jam makaniti loolu la ñuy tuddee zarfu zaman ni dara daawoda fo fo zarful makan fo munta dem ibe tarla somandala kono wuraro ibe tarla tilola kono walla itara lookumu kono ibe karoo kono ibe sango kono ah di ngay dëkk ci suba wala nga nekk ci bëccëg wala nga nekk ci ci bésu aay wala nga nekk ci weer ñu lali naata ñaari ñoo ñëw ci aduna fii alay fen fula kii kama ah, yalla dal dal di ebal ñaari mbir si seen kaw i koya dadaa nii ma dadaa yaa tiñaa ne leen dem leen ngeen defar su ngeen defar ngeen yàq mu ne moo daa ko kuma kawee taa baaroo taa mu ne kaddu demal mu ne jëf bi demal a koy naali taata mu ne kaddu ak jëf su ngeen demee naali yaa ñiiñaa su ngeen ko rafetalee ale du banko eh, dinkiraa ñiiñandi le ngeen jis béréb bi mun a rafet naaliya ñiña sungen ngeen ko rafetale kiliman jawya kariman jawya samman jawya amul benna bes bu ñaaw amul benna weer bu ñaaw amul benna eh, bésuwaay bu ñaaw wol bi day kay ma hañi silo kan ala mu maa koy a ah, bi ñaari ñooñu yewee ñu ne ko yalla ñun de ñame ci kaw yoon bi doo ñu dimbale ako fen fule hal ɓulee nooma mu ne ñaari mbir tamit topp leen ñaari ako hakkiloo hal taani ŋaniw mu ne xel ak eene yéen topp leen akoy naari kaade naali yee maa koy wallahi be kana lamal mu ne xel ak ene dem len ngeen dimbale kaddu ak jëf su ngeen leen dimbale rek di ngeen dox hakkiloo ni ngani o tata bi nga xamé ne xel bi ak eene ikono ma ma si ñu ne ñu nge buur yëngal ala koy al kanaru ta mu yàlla dem len te ma ngi taraali bulu ko de dara amatul seen loxo dara amatul seen loxo ñu waraw lolam mu ne ñaar yi la de al kadar mu ne mooy alqadar dogal wala bee mara loolu moo leen uuf ñoom yépp biri wo bodajee bi bi bi loolu bàyyee ko foofu fen buka ñeña hakkiloo koomaani ŋaniyu dara du mun a rafet ci gannaaw xel ak ci eene biri wo bodajee gannaaw bi loolu jógee foofu kuma kaw ni mbaaro fen buka ñiñaa kooma dara du mun a rafet gannaaw kaddu ak jëf fen buka ñeña waadoo kooma anin ɗintira dara ɗum a rafet ci gannaaw waxtu ak ci jama gannaaw jamano bari ɓe ñimmalema de waaye li ci rafet lañ ci jublu de i ɓe ñimmalema de waaye li ci rafet lañ jublu de ñi muɗiyamoleti de mu ne lii waxtaan la de ñandangam fallon dañu war a xam suñu bopp nag ñandangam fallon ñun de war nañoo xam suñu bopp alquran o yaa itandin na mu ne alquran wañ nañu ko xool xool من حرم زينة الله من حرم زينة الله الذي أكرز لعباده الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة خالصة يوم القيامة آه. non naye jiyomi képp kuy naan ndox ntolleli ye soowara <laughs> ñun ñoo la ko may de ni ye kinoo domo soo mu lekk ñam tolleli ye soowara ñun ñoo la ko jox de ni bayo dum soo mu sol yére ntolleli ye soowara ñun ñoo ko may de نيديامو فو سومني واخ ناي نفع فكي داف لا امال نين كل لي سوالا نين نيو لاكو مايدي ني تامتا سو دوخي نامي تينا سو فكي دوخين بي يقول كل لي سوالا نين نيو لاكو مايدي علي جبريل كي من يالا دافا ابال جبريل جبريل ديامو جبريل مسلم ولي جلتي من حرم من حرم جمالك حرام يندروك انا كان ارامل zinata allah zinata allah alala janku feŋolu la li nga xam ne yàlla daf ko tànnal jullit yi mi yaaso de ñanta ŋaañaa la le koo xam ne soo ko amee da nga ko war a puugaroo mi yaaso de ñantee kuŋo wiringi la le koo xam ne soo ko amee danga nga war a ekkit sa bakkan ni mi yaaso de ma ñan na konko la ko ko am warloo xiif iko muna moti ñina ko lan moy lolu alladhi akhraja li ibadihi muna alladhi akhraja li ibadihi alay jangu sawlu bondi soji sa yalla genna lolu yeb kafiri tante no ah kafiri tante muna efer momul ko de nafiki tante nafik momul ko de mo kurun tante ñu boni momul ko ala mbali tante way ko ko xamul yalla tan mom muna akhraja aya fundandi litax mu genne ko li ibadihi li ibadihi لعباده لعباده لوا ايا فونداني دافكو ген على جمول للي غير جامامي يمكو دولتي من لي لنن لا دي بيزو مندا من تاي سي صبا عبد الكريم بشيري ما يتوك عبد الكريم غا يالا ني من بكيري من كو خمغا لو خيو الحاج مادي با عبد البر من كو الحاج مادي با كوني واخ عبد البر الصالح كيلو تواتو na ngeen bàyyi seen xel ci moom bu baax niina moo danta tiiloo la su fekkee danga nga bokk ak nit bésu aay niina moo danta jamaano la nga bokk nit jamano niina moo danta baadiyaa la nga bokk ak nit mbokk abulata ala noomay siita mu topp boromam yow nga topp ala soto su amee boromam ala yaa so yàlla may ko ala bata bu kee dangu wallahi soo jaamee sa borom du la uyu wo moole dangu mu ne la mu mu ne daf wax ne demal topp sa sa borom demal topp kale taala maari yàlla le wolu yàlla kero suur na li moom yow sa diggante ak moom suur na ko de biyaa moo bi jeele mu ne wax am na fa de waxtaan am na fa de jon jon nañol ben ju weele mu ne ñoom imam Cerno Abdourahman imam mu ngi koy xool de biyaa moo bi jee mu ne lii waxtaan am na fi de birin sëriñ Tuuba alabatu mu ne bi nga xamee ne sëñ Tuuba dafa jaam boromam afu dada alama ba mu àgg ci boromam ano ma ngolu ni ma fa Ahmadu Bamba ala faade la ah ni ma fo ahmad bamba mu ne soo soo ne ahmad bamba ala faadela yàlla suur na la kiilaaye ala yi mu ne yonent bi daf ñu woon yàlla biri nga ala jee biñ gisee yàlla akala saabu si moom moo tax ala ko mbaŋ soo ne yàlla mu ne la maa bañ nii ko kiila su ne yonent bi akoy xane ñoom foog ngee fale mu ne aha kay soo ma waxul sax wax naa la man soo ma yëgul yëg naa la gannaaw tudd nga yonent bi moo man tiñey fan koo mu ne kenn jubut ci gannaaw sa bopp moomam foy fango gooma soo ñàkkee tamit ni yaa so day ñaalala mu mu ne suñ ko amee sa kanam ko ko daalee ñaalale mu waaye ku ko ñàkk la ko ñàkkee de ah alis kooro sirooji ah mu ne na ngeen sor loolu mi ye moo ñaabo li nga xam ne loolu moo war a ñee doom mi ye moo ñaabo li nga xam ne mooy ñee doomi aadama mi soto ki am xel wañante ñaabo lale le ah loolu da war war war naa tax ba nga ñee kaatu ko ndaxte be yow la buntung le faata na buntunguti xam nga gis nga sak sak mi nga xam ne foofu la rab yi di dundee la buntung le faata na buntunguti seen sak seen sak yi ñoo gën a fees suñ sak kante biri bon na seejo ndaxte biñ bàyyee ko seejo be yow la kunko itam bi taw doron a mu ne gis nga àll bi nga romb yëpp loolu mooy sak béy a ak xar yi mu ne gis nga ñax mi xam nga béy yi ak xar yi ak nekk mu ne garab yi béy yi ak xar yi ak nekk ñoo ko moom bari maa ganda xacili la waaye nag sammuñ ko ci xelaw ka bannen dolla domo ñonke kundiji waaye ñoom seen loolu dafay jeex ñun lu tuuti li ñu am ñu ko ñu leen di ci asiyaka ñaawoñe tol maalon ko fen beebu mu ne lu mu bëri bëri ñoom xamuñ ne ñu ngay yore dara ani hajilooɓe moola waaye su fekkee nit ki am na xel naama manta su fekkee yëngu na hajilin daw kaamira num fambatandiraalam ah ku amul xel dafa yaakaar ne kii day sonnal boppam bannin fotata hakkilo tinema waaye suñu àggee si njëriñ xel hakkilin tan kaalo ne yaara ngam fan tooñeele ah ku ñàkk xel dina xam ne ndaxte man dama tooñ suma boppam baadañu min nataali waa ah mu ne ko lu lu ñuy lu Abdoul Barry def def ala yaa so wala yaali kunindi su fekkee yàlla may na ko loolu moo leen laali naata ala ba fala al dan Abdoul Barry ya su ngeen ñëwee ci yàlla yàlla dafa leen dem leen ci Abdoul Barry de Abdoul Barry kañen tan demale Abdoul Barry doy na ma waaye su fekkee fu dunu Abdoul Barry yéen du ngeen jóg e moom doy na ma bu doon Abdul Bari kon yéen du ngeen tu nañ bàyyi suñu xel bu baax mbe min kono nga taaji mu ne ci luñu ci tem bi daal lañ ci dem eh.